min almuminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badaloo tabdilan liyajzi allahu sadiqina bi sidqihim wasalaatu wasalaamu ala man bucisa mualliman sayidina muhammadin safati badni adnan wa ala alihi ahli lihsan wa radiyallahu an baqiyati salaf wa xudwatil xalaf faxri diini wal watan mawlaana al abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa yi ci ndigalu kilifa gu tedd gi di sëriñ Tuubaa cheikh Mouhamadou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yëkkati kàddu di ko ubbil rek ndax seen digg ak moom li ma ko doy doy doyuma ko ci seen seen diggante ndax xam ngeen ne ba ngeen dalee ba nëgë lépp moo ko ànd ak yéen kon li sëriñ bi di wax wa fil qalbi min ridwani fii ma ukinnuhu daninan bihi inna sudura qubur loolu mooy li ko dal ci seen digg ak yéen lim yéene bëgg ko wax kenn doyu ko ci bu ñëpp maasoon ci di ko ko waxalit kàddum rek moo ko mën a mottali kon dañ koy ubbi rek jataay nag lu néew lañ ci wax ndax day jataayu ndam di jataayu ndamu Serigne Touba ndamu Serigne bi di wane it li Serigne Touba waxoon wal yow ma yun sii nii bi yow mi yow bi xat sama tay ju ne gàcceel na sama démb kon loolu na ne fàng ba jërut woon ko amati bët na ko suñu kilifa gu baax Cheikh Abdoul Ahad ma ki waxoon kon ci ndigalu sëriñ bi ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax ñaan gi dafa bari lu ko waral ndax taxawaayam dafa matale sëkk ni ko sëriñ su waxee léegi ndax bi mu fi nekkee ay kilifaam jiitu na sax njabootu sëriñ Tuubaa gi waaye ba mu fi nekkee kilifaam ga cheikh Mouhamadou mustafa mbàkkeem cheikh Mouhamadou Bassir dégg naa ci kàddoom mu wax ne dama ko wax ne ko saa soo ma séenee may ñëw rek xamal ne lem naa sama xel denc ba kër moo fi jóge mës amu bëgg mës amu bañ noonee la ànd ak moom ba làq ngërëmam làq ngërëmi kilifaam yëpp mboolem jabootug Sëriñ Tuubaa gi kenn ku ci ne. ñim jamonoonteel ku ci ne seq naa ak yow loo xam ne loolu doy na sëkk firnde ci loo xam ne ab joxañ la joxañ ba taxawaayu tey bii wane na ne kenn ñoom seenu gis dafa neexoon lañ gisoon mooy fi mu toll tey dégg naa ci kàddoo mu wax ne am na ko ko mos a seer kàddu yi cant ci Cheikh Mouhamadou Bachir ba mu waxee ba jeexal sëriñ bi da ko ne rikki de waaye lii mu wax bu fekkee mi ngi ci yow na nga fexe ba sax ca bu nekkul ci yow itam na nga fexe ba mu nekk ci yow loolu nag yàlla def na ko ci moom kon day ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax njabootu Sëriñ Tuubaa yi doy loo woon nañ ko doy loo goo xam ne kenn xawut fu mu yem Cheikh Abdoul Ahad Mbacké na lu ko daa doxloo ak di ko ko yónni te booba xam ngeen ne ñi ko jiitu ci yoon yu bari na waaye pëstéef mu ak dogoo moo ko may Cheikh Abdoul gane jëne ko ba tàyyi bu ma saan si si Sëñ Saaliw ci ngan yi mu daa def moom sax bu agsee moom lañ njëkk laaj ngir jëli ko kon loolu seen diggam moom a tax diggam ak Serigne Saaliw nag àdduna sépp xam nañ ko ndax Serigne Saaliw seddoon na ko ci ci moom cër boo xam ne kenn xamul fu mu yomb ndax lu ko mas a ñor wala lu ko mas a itteel moom la ciy jiital bi mu demee ba nga xam ne. dem na ba cheikh Mouhamadou Mourtada bàyyi ko fii itam mu xamal ko ne sa jëmu jëma ci doy kon ñoom la cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ci suñ bàkk Madina rek ci jëmmam ji lañ koy xoolaat suñ bàkk Madina dafa cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne Serigne Touba de sëddi képp ku ci jub te tegu coon mu dugale ci suñ biir daanaka suñ bàkk Madina mi luñ ko ëppale waaye moom mii nag àgg na ci xaal boobu tey amul dara loo xam ne. ñi ngi ko daa xalaat ci doomi Serigne Touba ci positif ak yaakaar te bu ñu xoolee jëmmam ji duñ ko gis ci moom digg mag Serigne Souhaïbou ñëpp xam nañ ko ba ñu ne ci biir daara ja daana fa ñëw xam nañ seen diggante àdduna sépp xam nañ ko soxna May ñëpp xam nañ ne laytul xadri gii moom la defa jëw nañ ji ak ngërëm yépp kon moom ngërëm li dafa yàgg te muy loo xam ne dafa dëggu ci moom yàlla binde ko nii dund lu dul sëñ Tuubaa bëgg lu dul sëñ Tuubaa tal lu dul sëñ Tuubaa damay wax ne Cheikh Mouhamadou taxaa ku ko xam ku ne xam cër ba mu àgg xam fa mu àgg am mënuñu wax mënuñ koo xam nag waaye ku ko xam ku ne danga xam ne itteem génnut ibaadaat yi jaamu yàlla yi muy def li mu toggoo ci njàngum alxuraan ak xasida li mu toggoo ci ibaadaat yi waaye yàqalu ko ak jëflanteem diggam ak nit ñi daanaka day mel ne bis bi dara waru ci dara warutoon a xaj ci ni bi dunde waaye lépp yéene pësef ak bëgg sagal Sëriñ Tuubaa rek mooy tax loolu mu di ko def kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi loolu mu yàgg te ànd ko wér doon na sëkk taxaw ñaari doomu Sëriñ Tuubaa loolu moo ko njëkk am ci setu Sëriñ Tuubaa kon taw fi la ju ko Sëriñ Tuubaa defal ginnaaw bi fi njabootu Serigne Touba gi jeexee ci kaw suuf Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ku ne xam na fa mu toll ci at cër bi ko yoon wu jox cër bi ko àdduna sépp jox waaye ba nëgë ni gisaatuguñ ku mel ne moom mu jug taxaw laxasaay boole ko juróom-ñaar sa million ak ak lu tegal def ko addee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ngir Serigne Touba loolee itam ba mu koy wax dafa dajale njabootu Serigne Touba gépp waxoon ne lam la ma ci gën a jund mënoon naa ko jëf te kenn du ko yëg waaye dama leen di jàngal aw yoon ñëpp xam ne nii moo nii moo ware noonu la ware ñëpp loolee nag dund na ko moom diggam ak Cheikh Sidi Moxtar noonu la ànde ñoom mës amu bëgg mës amu bañ kenn mësumaa yónni ci moom ma dem xam xalaatam ba ni mu doon Sëriñ Tuubaa kon moom jataay bii tey bu fekkoon tamit luy jaay la dama damaa wax ne da jënd sëriñ Touba lu waaye am dala ko dala ko gën a baaxee la ko waaye bu doon bu doonoon lu ñuy lu jaay dama ne da jënd te sëñ Abdou Lahad waxoon na ne yoon wi yii rekk fi ne liñ la dénk ak liñ la may ak liñ la jaay nee na liñ la dénk waxtu wu neexee borom mu jëlaat ko li liñ la may mu neexee kala ko mu jëlaat ko. li nga jënd nag la ko jaayan taneetula ci taneetula ci njëgg kon sëriñ bi lii mu am ci lislaam ji waxuma yoonu murit waaye am ko ci biir yoonu murit ndax moom day wax ne fi ma ne ci sëriñ Tuubaa ak ni muy doxee ci sëriñ Tuubaa mboolem ñi bokkal sëriñ Tuubaa ni ma ko yéenee sama bopp ni laa leen ko yéenee waaye suñ borom delloo na ko ko nag ndax njabootu sëriñ Tuubaa gépp maase nañ ci yéene ko jataay bi yéene ko mu yàgg lu mu fi gën a yàgg rek xeeb nañ ko ngir xam li muy jëriñ ci yoon bi ndax la ci la ci la ci gën a tuuti mooy foo gis gisee jëmmam rek saxee dellu ci yàlla foo gis gisee jëmmam saxee dem ci Tuubaa loolu doy na ko sa kub liggéey leneen li ci des lépp mën nañ ko muñ waaye lool li nga mooy li nga xam ne kenn mënu koo ñàkk danaa ci tànn jenn seen seere ndax njabootu Sëriñ Tuubaa koo ci wétal seere sa seere sami seere ci sëriñ bi am na ci loo xam ne su ko yëkkati ci rajo di ko wax ndax loolu boo ko waxee sax day nuru dara. waaye sëriñ Cheikh Mbàkkeem sëriñ Saliou wax na ne wa yawma aslama jibrilul aminu ata bi isniman huwa fawqal kulli qaharu mualliman anna islaamal fata umarin busra li ahli sama wal kulli yaxtaaru neen mooy xelaaf ak Cheikh Mahmoud Moustapha Cheikh Mahmoud Mountakha te moom suñu Cheikh kon xam na li fi mu toll ak ni ko yàlla bindee du wax lu mu gëmut kon loolu doy na sëkk seera te njabootu Serigne Touba gépp gi mu ko seqal ñëpp foofu lañ maase ne ci moom kon yàlla na fi yàgg te ànd li ci dolli ko rek mooy bisum ndam la ndax aaya bi ma tari Serigne Atou Diagne day jàmbaar lool àndoon ak Serigne bi Serigne bi xam pësté fa xamu dogoom moo tax ma tari minal mu'minina rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi waaye loolu itam day wane ne mbirum Serigne Touba kenn dooru ci dara. lépp moo ko yorul boppam ndax ku xalaatoon ne moom mi moom moom di suñu aatu mën na fay jóge moo tudd weer yii ngeen jëfaat fi jëf ji ngeen fi jëf te dara taxawul lépp di gën a yokk lépp di gën a dox day war ne kon jàmbaar ñëpp suñ tuwaa dimbale suñu buxaat daana ko wax jàmbaar amul kun dimbale am waaye kon yéen dangeen am dimbalu suñ tuwaa sëriñ bi nag lim leen daa seer dadaa wax ne dadaa wax ne képp koo xam ne mi ngi xalaat ci yéen dara daa jàpp ne Sëñ Tuubaa dara jomb ko te Sëñ Tuubaa dara jomb ko kon yéen wanewaat ngeen it ndamul Sëñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne tubaab yi de damay njëkkante ñoom koo xam ne njëkk nañ ma ci moom ñàkk naa ko bu faw waaye koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw yéen ñii nag xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa bi biñ ko yóbbu njaareem raamoo ma siri ilaa jurbel la daal la sasi law aayeenoo sirra maa fi sayri maa raamoo ñëpp xam nañ ne la taxoon tubaab yi indi ko fi ci seeni natt mooy jàppoon ne fii njaarum toll ci ay taax bu ñu ko fa indee ña Sëñ Tuubaa xasoon defar kenn moo tuddee na soppi waaye ñii judduwaat ginnaaw bi ñëpp cinéma yi ak marché yi ak mbooloo mi daal leen fab bi yéen ñii nag yenn weddi Sëñ Tuubaa tuuma wane ngeen ne Sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg def ci nit ki dara mënta dox diggé diggam ak loolu da ngeen a layan ngeen sëñ Tuubaa wa wane ngeen ndamul sëñ Tuubaa kon nag na ngeen sant yàlla bu baax te xam ne nii ngeen di doxe itam sëñ Tuubaa leen ko digaloon sëñ Yuusu nag yow danga nga am tawféex ndax tawféex ji mooy daayira bi daa doxoon ñu di ànd ci seen biir di tànn njiit ba agsi si suñu aatu mu def ci jéegu rëy rëy ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne dund naa ko mu xam ko yow nag da nga am tawféex ndax yow suñ bee la tànnal boppam te ba mu lay tànnal boppam itam diisoo ci laaju laaju ji waxtaanu ci daa noppi rek yëkkati boppam kàddu wax ne fu ma gisee aatu sama xel dem ci yuusu fu ma gisee yuutu sama sama xel dem ci aatu kon sëñ bi xamoon na ne dayra bi dara luy soppi ko mu ci loolu nag wane waan nga ko tey jii ndax bi ngeen mujjee siyaare ñaar téeméeri million ngeen amoon tey siyaare bii bi ngeen koy def bi nga koy wax Serigne Moussa. di ko ca laajloo sëñ bi ndigal boo li des ci koor gi moo fukki fan ak juróom sëriñ bi tànnal la bis diggante bi moo fukki fan juróom ngeen dajale ci ñett téeméeri million yu tegal li mu jëy sun te xam ngeen jëy sun ni muy tegtale ci mbirum Sëriñ Tuubaa kon yéen am ngeen tawfeex bu noppi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag moo leen taxawaloon tegoon leen ci yoon waxoon leen ne leen fu suriñ Tuubaa xëye na ngeen fa gonte fu gonte na ngeen fa xëye loolu nag wàccu leen ko waxoon waxoon na leen na leen itam yéen ngi jëm ci dëkk boo xam ne yéen a ko dëgg ma sax dara mun leen te fa àgg te bu ngeen fa àggee képp ku ngeen ko ànduloo dana leen ci ñee loolu yàlla defal neen ko tey ndax mel na ne ñi ëpp ci nit ñi gindi ko nañ ci yéen ba ca sit waxoon waxoon na leen ni leen lépp lu ngeen dajeeti ci seen biir te kenn raxu leen na ngeen xam ne wax yu jóge Sëñ Tuubaa la loolu doy na sëg kon nag sant leen yàlla bu baax te xam ne Sëriñ Tuubaa liggéeyal ko képp ku kum defal tawféex ba nga dëddu àdduna bàyyi lépp di ko liggéeyal na nga xam ne am nga defaruk àdduna ak alaaxira ndax moo ñaanoon suñ borom ne ko waq di si lisina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu ma nettali ci rek lu gàtt ndax dafa nekk ca njaareem ca ca ca gànnaar ca déwén sele sëriñ bi ñibbisi ne nañ ma wool fere yépp ñu daje ñu wool ko fere yëpp ñu daje mu wax suñu alliyu seen ak alliyu wool ma fere yi ñu woo ñëpp ñu daje sëriñ bi ne àll yi limal ma ci yéen yi am Sénégal loolu sëriñ Jean bi bu ma ko daan nettali suñu alliyu say di lim gum lim rek sëriñ bi ne ko du googa ba jeexal mu ne ko xam ngeen lu ma ci jubloo mooy damaa bëgg ngeen xam ne lépp loo xam ne digg naa leen ko fii tey ni ngeen di gisee lii ma leen di bëgg dig ni ngeen ko gisee daane suñ boroom xamal na ma ne balaa na ngeen si déwén danañu fekkee Sénégal ci ak li ma ci jublu nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen ci àdduna bu ëllëgee deen ko gis fii ma leen ko waxee nag ba kenn ngeen ba keroog ngeen fi jóoy kenn du faatu ci kàttanu yàlla fekk am na ci menn magum taalibe mu doon xaaru ñëpp jàpp ne day faatu waaye dafa wéraat ba sëriñ bi ñu Sénégal ci Thiène Jolof mu door a faatu kon loolu mooy mbiru Sëñ Tuubaa lii ngeen fi indi muy addiyee nag rëy na lool waaye Sëñ Tuubaa dara rëy ci ndax nekk na ca gànnaar am kenn ci bokki taalibe yi ci ci kilifa yu mag yi wax ne dafa bëgg dajale addiyee dafa bëgg dajale Sëñ Tuubaa addiyee ju ko kenn mës sa jox daal di mbay mbay mu yaatu dajale ay taalibeem dajale lam amoon lépp jaay ko mu nekk juróom-ñetti junni mu ànd ak mbooloom. ñëw fekk sëriñ bi ci ci ci ci gànnaar bi mu agsee nuyoo sën bi laa ko doon si tànk mu ko dama laa siyaare si woon bëggoon laa jox addiya addiya ji nag mu ngi toll ci juróom-ñetti junni sëriñ bi ne cel waxu ko dara dugg ci biir na sotti mu ginnaat daal ne ana ana ndawi Ahmadu Ndumbe mooy sëñ Mandumbe fekk sëñ Mandumbe yónnee na fa ndaw ba ndaw la agsee sëñ bi ne ko anal doon say tànk mu ne ko sëñ ma ndumbi Ahmadu Ndumbi moo yónni mu ne ko lu mu la yónni mu ne ko àddiya mu ne ko lu mu sol mu ne ko ko ka indi woon loola sëñ ne ko àndal ak moom ci biir kees ya ñenn ko ba xam ñaata bañ demee wàññi ko muy kon sëñ tontu na ko kon nañ xam ne sëñ lépp lu ko waaye di defal rek ne moo la ko defal lañ ko mën a fayee ndax am na koo xam ne gàmm dafa jot sëriñ Tuubaa wax ne koo ko wax ne damaa bëgg a teral gani gani Sëñ Tuubaa delloo ko ko njukkal ca njaarim rey ay nag yu baree bari ak i xar ak lam man lépp séddale pension ba mu fees lépp mu jëf ko ay ñam ba gàmmu gi jeexee mu ñëw ci sëriñ bi leeroo ko li mu jëf sëriñ bi ne ko ana loo ci jubloon mu ne ko xanaa del delloo la njukkal sëriñ bi ne ko mënu leen ko kon yàq nga sa jëf ndax la la nga man ba tax nga def ko maa tax nga man ko kon kon kon lay cant gi mooy ngeen yëg ne maa leen ko defal kon nag foofu lañuy ñuy jeexale di ñaan sëñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér te suñ tubaa tàbbal ñu ci lam waxoo ne add xaltu nafsi wa jamii ahli fi jey bi afdali wara bi fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bala maa jeexal nag sëriñ bi xam ngeen bi muy ñëw ànd nag lenn ci ay bokkam ndax mu ni solim ñëpp ndax bu sëriñ bi xasee toog yoonu murit baaxoo noonu waaye sëriñ Isaaxa Mbàkkeem Seex Muhamadu Bachir mi ngi toog sëriñ Abdou Samad Mbàkkeem sëriñ mi ngi toog sëriñ Moustapha Abdoul Akram mi ngi toog ak yenn mboolem cheikh yi sëriñ Tuubaa ak lenn ci bokk yi ñu bari ñu ngi fi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal waa dayri bu salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh